bi la yoon moom mooy ñetteelu at kuréel gi Touba ca kanam nooru daara ñi nag di organiser li nga xam ne nii moom mooy bis boo xam ne da ciy dimbali ñi nga xam ne ñoom ñoo di way néew gi doole yi waaye a tàmm ci li nga xam ne nii moom moo di weeru koor gi atum ren yi nag lu bëgg a jege fukki million ak juróom benn yëkkati nañu ko daal di koy jagleel ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw te dëkkee ci biir dëkk bu sell bi ci Touba mu dëppoog nag ñu daal di cay dimbali toll ci ñeenti téeméer ci ay boroomi kër yoo xam ne nii aajo nañu ko fas nañu yéene tamit daari alxuraan yi ñu fas yéene sob sob ay dimbal ci ñoom lu weesu loolu lépp tamit dañuy yëngu ci wàllu wér-gu-yaram ndax dëkk bi am na ñoo xam ne dañ fee dëkkee te di ami ay ñooñu tamit taxawoon nañ ci ab lim di depuis mois de mars la man ci la nekk woon ci ci ci bopp bànqaas bi waaye boobaak léegi yaakaar naa ne taxawu ci ay cas cas sociaux ñoo xam ne dañoo wéradi ëpp na fukk loolu nag lañ fas yéene yoon Euh, wëyal. Serigne Mourtada Mbacke Abdoul Fattah mi nga xam ne nag moom moo jiite commission sociale bi nag di fësal ne li nga xam ne ñoo di way néew ji dool yooyu lee amul benn dërëm ne ni laal moom moo jëm ci ñaat téeméer yi nga koy cotiser ci biir li nga xam di ndimbal yooyu lee mi ngi jóge ci ay waay yoo xam ne ni jël nañu seen alal daal di ko cay yi nga xam ne moom lañu laaj murid bu nekk ci weer nekk amu ci lépp jaayante lay doon boo xam ne ni chaque weer rek ñun bokk taalibe yi nekk membre Touba ji Kanam ak ñi nga xam ne nii lu baax ñor nañu ku nekk day yëkkati aw ñaqam def ko ci. beneen ji ñu am tawféex yi Cheikh Mamadou Mountakha mi nga xam ne nii moo fi nekkal Serigne Touba moo moo moo moo jiitu ci jaayante bi ndax bi ma demee di ko leeral la ma wax ne man nañ ko tuddee gën a yeesal jaayante. ba def ci jëf joo xam ne nii jëf ju koy njort la ndaje mi nga xam ne nag ñoo ngi ko doon amalee ci mbaarum daaru xuddoos ci dëkk bu sell bi di Touba nag Touba ca na a baax ci li nga xam ne ni moom moo di ay jubluwaayam am nañ tamit yéene ñii ñuy jox ndimbal yi xam nga nit ki jox ko ndimbal tey boo ëllëgee mu laajaan la ko am na lu ko ëpp solo fexe ba dimbali ko bu boo ëllëgee moom mu bokk ci ñuy dimbale yaakaar naa loolu mooy objectif bi tax sax suñu boroom digle ñuy joxe asaka loolu nag am na xalaat boo xam ne nii baytu sàkkaat lañ bëgg a ubbi buntu bo euh, fond boo xam ne nii képp kuy joxe asaka ci Touba ak li ko wër ak bépp jullit boo xam ne bëgg ngaa joxe asaka te bëgg mu àgg ca ñam jëm bu ko defee dañ koy dajale foofu seet ay famille yoo xam ne kuñ ci dimbali ren dañuy lay accompagner ba bu déwénee nga bokk ñi nga xam ne ñooy dimbalee